te nooy fees dell ak yërmande ak jëf yu rafet àndul ak genn parlaqu amul genn nafeq te nitu jàmm dina bey toolu jàmm góob njub